الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أما بعد عباد الله ñi ngi sant suñu borom subhanahu wa taala borom boobu nga xam ne ay xéewalam ci ay jaamam kenn du ko fekk allahuma nudul bokk na ca xéewal yooyee mooy wërsëgal ñu lii nga xam ne moo ñu tiim di shahru ramadan duru ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla yàlla wërsëgal ñu ñu bokk ca jaamam yi nga xam ne dañ koy fekkee bokk julit dafa war a góorgóorlu fu mu mën a toll mel ni nit ñu baax ñi fi jiitu woon mbokk nit ñu baax ñi fi jiitu woon day bokk na loo xam ne nii daanañ ko wax ne ñoom te ngeen déggoon ko ci xutba yi nga xam ne dafa passé mooy dañu bëggoon fu ñu mën a toll di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu wërsëgal leen ñu bokk ci jaam yi nga xamee ni nii dañuy fekkee la nga xamee ni nii moom mooy chahru ramadan lan moo waral loolu mbokk tey jii jamono jii bokk na lu nit ñi xam mooy lu ñuy tuddee ay promotion suñu borom yàlla nag ci weeru koor ay promotion yu bari bari bari la tegale ci biir weer woowi looloo tax ba jurit bu ko xam mbégteem dana màgg lool ci fekkee bëgg fekkee weer bu màgg woowi tey jii bu weeru koor ñëwee am na ñoo xam ne ñoom ñu ngi ciy profité bépp façon lekk ñu ngi koy génn ci rajo yi télévision yi di ko def ay pancarte ci mbedd yi di ñaax nit ñi ñu mën koo jënd bu baax ndax xam ngeen am na ñoo xam ne yàlla natt na leen weeru koor bi waroon a nekk weeru wàññi lekk ñoom weeru koor dañ ciy double la ñuy lekk am maa yow julit ana yan mbir ngay gis ne suñu borom bi ñu la koy gaaralal ci wéeru koor xamal ni julit dafa war a bég ci jaamu yàlla gum mën a doon xam na njëriñ ba xamul njëriñ ba la waral loolu mooy suñu borom nee na kat fa bi dalika fal yafraxu huwa xayrun mimma yajmaun lépp loo xam ne nii tëral naa ko ci samay jaam ngal la waay jaam yi nañ koy bége te xam ne loolu day moo gën lépp lu ñuy dajale ci àdduna mbokk doomu aadama bi loo mën a am ci adduna tuyaaba ko gën ak loolu lu mu mën a doon rek ci alalu adduna xamal na tuyaaba ko gën ndax alalu adduna lu mu bari bari dañ la fiy bàyyi tuyaaba rek mooy ànd ak yow ci bàmmeel tuyaaba rek mooy ànd ak yow yowmal qiyaama mu bokk ci loolu benn jëf la ñu yeneen ci bi alayhi salaam gaaral wax ñu ne jullit day bu la jekk moom yowmal qiyaama day kontaan mbokk jëf boobu moom mooy koor suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ci loo xam ne abi hurayra nettali na ko bépp doomu aadama day ay jëfam suñu borom mu ne danaa ko ko fulal fukki yoon wala juróom-ñaar téeméer yoon wala la nga xam ne moo ma neex bam des na koor koor moom mën naa koy fayal sama bopp ndax jaam bi daa xëy bàyyi lekkam ak naanam bàyyi bànnee xam ngiree am sama ngërëm kon moom kenn du ko limal ne ko lii ngay am ak laa ngay am man naa koy fayal sama bopp rasul sallallahu alayhi wa sallam ne bépp julit dana am ñaari mbégte heure bu jeexalee kooram dana kontaan ci loolu waaye heure bu dajeeg boroomam ba gis fay ya nga xame ni nii yàlla da ko koy fay su boobaa da ngay gis ne dana kontaan ca koor gam doon koor ci àdduna loolu nag mbokk julit kon moo waral julit fu mu mën a toll bu ko weeru koo tiimee mu daal di kontaan di ñaan yàlla ngiree mu fekke ko ay yow mbokk julit weeru koor day dalay aar adduna ak alaxira rawatina ci sawara nañ xam ne amul kenn kuy dugg aljanna lu dul dana jëkk a jaar ci siraat siraat boobu yàlla mi ngi ko teg ci kaw sawara sawara boo xam ne xóote na buñ ca sànniwoon ab montagne dana dox juróom ñaar fukki at avant muy daanu ca fooba loolee da ngay gis ci kaw sirat la ñuy jaar bokk na la la cay aar mooy koor googu dana ñëw protéger la a rasul salallahu alayhi wa sallam ne koor day nekk na benn tasa benn luy ëmb doomu aadama bi ba musal ko ci la nga xam ne muy sawar loolu moo tax ba loolee nga xam ne moo lay aar fexeel ba bu ko xotti fexeel ba bu ko bëtt yonent bi alei salatu wasalaam ne kenn ci yéen bu wooree bu mu wax lu bon bu mu jëf lu bon bu nit jógee fële ak histoire am dal ci kawam na ko wax man dama woor man dama woor maa ngi leen di seedeel ci ki nga xam ne sama bakkan mi ngi ci loxoom xet bii génne ci ki woor buñ demee ba takkusaan jot xet googu moo gën a neex yàlla xetu bi gën a neex ci kaw suuf ñu koy tudde xetu misk mbokk kon koorango di loo yaakaar ëllëg ki si biir bépp luy lakkaati jóge ci sawara mu dox sa diggante ak moom yàlla na yàlla boole ci suñuy koor gannaaw loolu mbokk julit koor day mi ngi nii yonent bi salallahu alayhi wa sallam ne yowma alqiyaama dana ñëw ànd ak alquran heure boo yàlla di layoo ak yow amul kenn ci ñun ludul suñu borom dana ko taxawal ci kanamam du ànd ak kenn borom bi xisaab ko su boobaa koor dana jóg yaay yàlla daal ko kii kat sa jaam la boo xam ne maa doxoon digganteem ak lekkam ak naanam ak bànneexam ci bëccëg ba ew yàlla baal ko alquran daa di jóg daa di ne ay yàlla baal ko kii kat maa doxoon digganteem ak muy noppalu guddi da daan taxaw guddi di ma jàng ci xiyaamu layl ay yàlla subhanahu wa taala baal ko yonent bi alei salatu wasalaam ne waa joojee danay gis lu mu mënoon a def suñu borom yàlla dana ko baal ngir ñaari ñooñu nga xam ne ñoo ñëw di ko ramm ca muy alquran ak koor bi nga xam ne moom la doon def mbokk loolu la ngay gis bokk na ci koor suñu borom dala ubbil buntu entraînement ci dajale tuyaaba yu bari ndax doomu aadama bokk na ku koy xañ tuyaaba muy cheytaane bi dox digganteem ak lépp lu mu bëgg a def suñu yonent alayhi salaatu wasalaam ne bu ñu ñëwee ne weer yu feeñ ci ramadan suñu borom dana tënk cheytaane tënk jul jinne yi fittiirlu ya nga xam ne ñoo doon xiirtal jullit ñi ci lu bon yàlla dana leen tënk ba weer wi daal di passé loolu it moo tax mu bokk lu ñuy remarqué ci àdduna bépp mooy weeru koor bu jotee jullit ñi da ngay gis ne dañuy am jàmm ci moy yàlla yu bari bal da ngay gis caaxaankat yu bari sax ci ay musicien bu weeru koor jotee dañ naan duñ ci musique ndax xam nañ la ca nekk ci lu bon kon loolu yi suñu borom tënkal la seytaane yi dana tax ay jaamu yàlla yu jafe woon nga jóg taxaw ci entraîné wu ci pendant un mois loolee da ngay gis ne bokk na ci xéewal gu rëy bu suñu borom dugal ci réewu màgg wawe suñu yonent alayhi salaatu wasalaam ne amul benn guddi lu dul yàlla dana yónni malaaka yi na leen dem leen ubbil ma bunti ajjana dem leen tëjal ma bunti sawara bu ko defee aji woote jóg di woote ay yow mi nekkoon ci lu bon gàttañ dul bàyyi ko ay yow mi jógoon ci lu baax jógal continuer taxaw ci bépp guddi suñu borom goreel ay nit ci sawara xadis boobu Tirmisi ak xaakim solo nañ ko loolu moo tax ba ñuy am rafet njort ci bépp julit boo xam ne dafa dee ci weeru koor ndax mooy weer bi ñuy tëj buntu àjjana buntu sawara yi weer wu ñu ubbi la nga xam ne mooy buntu àjjana yi loolu itamit julit bi it war a ñaan yàlla fekk weeru koor lu waral loolu mooy li yonent bi alei salatu wasalaam wax amul benn guddi lu dul yàlla dana am benn liste ci ay jaamam dana wax malaaka yi ñii gorel naa leen ci sawara yàlla na yàlla boole ñu ca te loolu ba baa koor gi di jeex mbokk weeru koor a ngi nii julit war a góorgóorlu war cee profité ci la nga xam ne mooy xiyaamu layli la doon la ngay def ca jàkka ja wala la ngay def feneen ca loolee nekk aw yu wuri woo xam ne nii suñu borom yàlla subhanahu wa taala def na julit ñu bari sa war ci bal dañ koo def mandarga sax bal ñu bëri sax dañoo jàpp ne bu ñu naa fi liwul koor ga baaxul doon ci ne demawul noonu waaye ci barkat weeru koor nga gis ay julit yoo xam ne daañ dem taxaw ca jàkka ja di def ay rakkaa yu bëri loo xam ne li ëpp ci ñoom bu weeru koor passé ñu bàyyi ko doonte ne loolu warul woon waaye ala kulli xaal lu ñu remarqué la mooy weeru koor moom bu ñëwee ñépp ñu daawul taxawee naa fi lu guddi daañ ko taxawee na gudd wala na gàtt bokk weeru koor a ngi di ñëw ñu war a bég ci dajeeg moom lu waral loolu suñu borom nee na defal naa leen ci benn guddi goo xam ne moo gën junni weer mbokk junni weer mooy juróom fukki at ak ñett tey jii waa ji nga xam ne nii yàlla wërsëgaloon na ko mu fekkee fukki laylatul qadr ak ñett yu ko yàlla nangul rek moo ëpp ak dund yeneen ci yàlla nuux mi dundoon junni at ca loolee day ki dund junni at yu topp ci lépp ci topp ak yàlla ana sunu mag ñi nga xam ne fekk nañ ko ñaar fukki yoon wala fanweeri yoon wala juróom fukki yoon wala lu ëpp loolee loolee kon moo tax ba julit war a góor góorlu fekke la nga xamee ne nii moom mooy weeru koor ñaan yàlla bokk ñi fekke weeru koor kontaan loolu ñu daje ak weeru koor mbokk weeru koor a ngi nii bokk ne xiiwal yi ci yàlla def rasul sallallahu alayhi wa sallam ne kii demoon umra ci day dana am tuyaaba ji tol ne ki àndoon ak man ca la nga xamee ne nii moom mooy sama at ga weeru koor a ngi nii suñu borom yàlla ubbi ko ci jege miskin yi leel miskin yi suñu yonente alayhi salatu wasalaam ñaax ñu ne képp koo xam ne danga koo dogal yàlla subhanahu wa taala dana la bindal yoolam ca du yàq yoolu kooram dara ca falilahi alhamdu dogal googu tënkuwul ci miskin yi yonente bi alayhi salaam saiman la wax aji woor bu mën a doon même bu doon mën a ëpp alal nga jox ko lu mu dogoo yàlla dana la may kooram daal di lay bindal moom it mu jagleel ko ci du ko wàññil dara loolu moo taxit mu nekk weeru promotion ci lu bari ñu yàlla dink dara bu weeru koor jotee ñu jël seeni alal di ko yóbbu ci jàkk yi ngir ñu togg ci ay ndogu la koy mën a lekk téeméer ñaar téeméer lu ëpp loolu ca amul kenn koo xam ne lekk na ci loolu lu dul ne tuyaamay kooram yàlla bindal la ko ca du yàq sa koor dara mbokk weeru koor a ngi nii doon weer wi fóot doomu aadama yonent bi alayhi salatu wasalaam ne man saama ramadan imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min zanbi képp koo xamee ne nii weeru koor dafa jot nga woor ko ànd ak gëm la ca yàlla santaane ci farata ya ànd ak dogu ci sakku tey ga yàlla diga ca loolu suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam ne mboolem bàkkaar yi nga jiitaloon sa borom yàlla dana la ko baal bokk weeru koor ngi nii nekk weeru ñaan nekk weeru nangu ay ñaan julit war koo yàkkam ci ngir ñaan yim doon ñaan ci fukki weer ak benn yépp yàlla nangu ko mën na am yàlla nangul ko ko ci weeru koor rasul sallallahu alayhi wa sallam ne ñetti ñaan ngi yàlla du ko nangu yàlla du ko delloo gannaaw way jur woo xam ne dafa ñaanal doomam kooku de yàlla du ko delloo gannaaw waa ji nga xam ne daa nekk ci tukki ba baa muy dellu si yàlla du delloo ay ñaanam gannaaw waaye waa ji woor ba baa muy dog yàlla du delloo ñaanam ay gannaaw looloo tax ba suñu borom yàlla bi mu ñuy wax aaya bay aju ci wàllu ñaan daf koo dugal ci biir weeru koor ba muy lim aayay koor ca la dugal ne samay jaam day buñ ma lay laaj nee leen man ko jege laa maa ngi nangu woote képp ku ma woo loolu it moo tax ba bëccëgu koor gépp nekk bëccëgu ñaan waaye rawatina nag jamono bi ngay dox heure boo demee ba lekk sa tàndarma wala naan sa ndox ba nga xamee ne dox nga koor bi ngan la way minute yooyu profité loo xam ci ñaanu àdduna ak alaxira nga ñaan ko ca yeneen ci bi alei salatu wasalaam nee na képp ko woor yàlla dana ko may ñaan gum dul delloo jamono ba muy dox iyam mbokk julit suñu yonente salallahu alayhi wa sallam li tax ñu war a kontaan ci dajeg weeru koor bokk na ci loolee da ngay gis ne daanañu wax ne ajjana day suñu borom yàlla ma nga fa waajal benn bunt boo xam ne bunt ba rayyaan la tudd yowm alqiyaama malaaka yi dañuy seet ñi doon woor ñu woo leen ñu fay dugge suñ demee ba ñu doon woor jeex ñu tëj bunt ba keneen ku bokkul woon ci ñu doon woor du duggee ci bunt boobee loolee nekk daraja yu kawe yoo xam ne ku nekk ci ñun war na ci bàyyi xel ba bokk ci loolu ba tey mbokk julit lii nga xam ne ca la ñuy gëne mbokk loolee suñu borom nee na koor da koy joxe borom bi mu ne ay yéen julit ñi farataal naa ci yéen koor lu ma ko farataale woon ci ñi leen jiitu woon laallakum tattaquun lii lay ngeen ragal yàlla te laa shakka ne suñu borom nee na inna akramakum inda allahi atqaakum ki yàlla gën a bëgg ki gën a tedd ci jaami yàlla yi mooy ki nga xam ne moo ci gën a ragal yàlla ajjana ne suñu borom nee na tilka aljannatu lati nuurisu min ibadina man kaana taqiya ajjanaa ngi nii duñ ko jagleel lu dul ña nga xam ne nii dañoo nekkoon ñu ragal yàlla ca koor boobu moo ne may ragal yàlla ay mbokk julit woor ko lii bëri nañu waaye xamal na loolu ca gën a bëri la mu gën a yëkkati say daraja benn xadis mi ngi nii ibnu maaja solo ko ak keneen ku dul moom kii di talxata ibnu ubaydallah bokkoon ci sahaaba yu mag yi nee na man day dama tëdd guddi daal di gént fekk amoon nañu ay benn ay dëkkandoo yoo xamee ni nii ñaari frère lañu kenn ki doon góor góorlu ci jaamu yàlla bu baax rawoon frère bi ba bis ñu dem ci benn jihaad mu daanu ci toolu jihaad léegi man ma tëdd guddi gént ànd ak ñaari frère yi ñëw ba ci buntu aljanna yonent bi salallahu alayhi wa sallam de ci li talxata nee na frère bi mujjee dee am lu ko jël si na ko kaay dugg àjjana mu dugg àjjana frère bi jëkk a dee te dee fi sabilillah ñu dox ko woo na ko kaay dugg àjjana man ñu ne ma ee yow demal nit gi su dugg àjjana jëkkagul nee na ma yeewu ci samay nelaw bi ma yeewoo mbir ma jaaxal ma mu am ñenn ñu ngi ko waxal ci sahaaba yi loolu yéem leen lool bañ dem ci yonent bi salallahu alayhi wa sallam talxa ne ko man li ma yéem benn frère bi moo gënoon a góorgóorlu ca moom dafa dee ci sabilillah léegi keneen ci moo moo mujj dee ba pare moo jëkk dugg àjjana yonent bi na ko waaw moom di dund na un an gannaawam mu ne ko waaw waaw mu ne ko at moom mu dund di dajale ci ak weeru koor mu ne ko waaw waaw waaw mu ne ko maa ngi lay seedeel ne weeru koor boobee mu ko rawi def na seen diggante lu toll ne asamaan ak suuf loolu mbokk muy wane ndekete yoo ci doomu aadama bi war naa yàkkam ci góorgóorlu ci ay ñaanam ngir suñu borom yàlla wërsëgal ko mu dund ba dund weeru koor ngir la nga xam ne moom la ko mën a yëkkatee ci ay tuyaaba kon mbokk weeru koor day mi ngi ñii tiim ñu ñi ngi koy wax marhaban yow mi nga xam ne yaay weeru koor di wax it ne ngallaway ku nekk ci ñun na góor góorlu jéem koo bëgg jéem koo dund léppam weeru koor du ay bis weeru koor du semaine weeru koor aw weer la lañu war a góorgóorloo ca dibi ba lañu war a góorgóorloo ca mujj ga jéem a fexe balaa weeru koor a ñëw ñu tekkalikoo ak i bakkaar jéem a tuub ak i bakkaar rasul sallallahu alayhi wa sallam bis mas na wax ci kanamu sahaaba yi amin ñetti yoon sahaaba yi na ko lan la mu ne yonent bi mu ne jibril moo ma dikkal nee na képp koo xamee ni yàlla daa def mu dajeeg ay way juróom mu saggan ba way jur ya gërëmuñ ko yàlla na yàlla solal ko yërmandeem ma ne ko amin mu ne ma képp koo xam ne dafay toog ci place ñuy tudd sa tur te du julli ci yow yàlla na yàlla solal ko yërmandeem ma ne ko amin mu ne bépp julit bu fekkee weeru koor saggan ci ay bakkaar ba yàlla baalu ko yàlla yàlla solu ko yërmandeem ma ne ko amin kon mbokk weeru koor ngi nii tim fan yu néew dox suñu digganteeg moom la nga xam ne mooy takk ba nga xam ne ni takk nañ ko te lu ëpp ci adduna bi mooy weeru koor ñu ngi koy séentu talaata jii di ñëw bu feeñee àllarba mooy bis bu jëkk bu feeñul la nga xam ne mooy alxames mooy bis bu jëkk loolee nag mbokk même bu safaanoo ak li waa Sénégal jàppit nga la way yow jurit bi woor ci yàlla tax heure bi ay xabaar dikkee jóge ci ñu wér ñu ne kat weeru koor feeñ na bépp calendrier bépp takk boo mënoon a jàpp nga la way bàyyi ko ndax suñu borom moo ne fa man shahida minkum shahra fal yasum képp koo xam ne xabaaru weer yi feeñ yegg si na ci moom nga la way ne daal di woor yal na yàlla wërsëgal ñu dugg ci wéeru koor ci jàmm yal na yàlla wërsëgal ñun ñëpp ñu ànd duggandoo ca yal na yàlla boole suñuy xol yal nañu yàlla musal ci fitna bu ñuy teqale yal na yàlla defal ñu muy koor gu barkeel lépp luñ daan def ca koor yu jiitu yi yal nañ def lu ko gën ci koor gii di ñëw yal na yàlla wërsëgal ñu def lu ko gën a rafet ci koor gii di ñëw yal na yàlla sippee ci suñuy bakkaar yal na yàlla nangoo ci suñuy ñaan fajal ñu ci suñuy aajo defal ñu ci la nga xam ne muy mun ko rafet te boole ñu ci ñay duggee buntu rayyaan ci àjjana yu kawe ya اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين